Nous sommes pas les spolier ñun ñooy def élection bi Nous ñi les Sénégal du fal cinquième président sans nous. le combat ce sera de libérer le Sénégal libérer ses prisonniers politiques je pense à mes frères de Pasteur en, premier, je pense à Ousmane Sonko. Le combat, c'est de tout faire pour que Mom, mu mun a génn fa mu nekk wax naa ko gëm sa waru len xuloo waru len xam nga da daanu c'est une élimination victorieuse que vous avez

Yalla bu Makisal, da ngay nangu Macky Sall bako di jox pouvoir xamul n'umu ko ko joxe gis nga bimu koy ci ci fu mer dara c'est fini alors loolu boko. ko gëmul da ngay japp ne la def li dal alors que Yalla moo retroussons-nous les manches serrez la ceinture et travaillons davantage Mané, ne bu bu matee bu mais bu maté rek day yomb inshallah. allah jàpp leen ne dafa maté rek continuer et sous la houlette de son excellence madame Mimi Touré ma ngi len di delu di len talal loxo ki fi nek kat amna deuguer bop deuguer bop go xamne limu bëgg def yépp mi ngi koy def tout à fait ben ben way nee ma tib nga tank ba waji teggi kon tenacité bobu ñu amone

li ñu ma mënul baal mooy li ma féete ak askan bi li ñu ma mënul baal mooy li ànd ak mécanicien yi ci VDN bi li ñu ma mënul baal mooy li ma ànd ak li ñu ma mënul baal mooy li ma ànd ak commerçant wu Sandaga yi nga xam ne soppi nañu leen ay yalwaankat li ñu ma mënul baal mooy baykat yi ma àndal te dégg ngeen ña ndekke Touba ñuy wax taxe bi ñu dolli ci gerte li ñu ma mënul baal Mon troisième mandat bi ma xex ak wa opposition bi oui, oui, oui, oui, oui, oui, ma di wax ne daj oui, gi daj gi campagne électorale oui, ñuy def non oui, ci donne oui, ci t-shirt grand boubou bu mat lañ oui, oui, ni ñu ko défé won ci législative yi noonu la ñu koy defewaat ni ngeen taxawé won nonu ngeen di taxawe waat waaye dama leen di wax né laata ñu yegg ci publication résultat bi comme suñuy stratégie ñoo leen jaaxal il faut nak ñu défat caravane comme duñu def caravane diri cin léegi nag da ngeen di ñew ñu andalo def caravane dogali benno jaajëf waaw caravane doggali Benno dinañu dem fépp ci réew cara caravane doggali Benno dinañu fekk nit ñi ci seen liggéeyukaay caravane doggali Benno dinañu ànd ak yéen fépp ci réew mi waxtaan ak nit ñi wax lan moo tax dëgg-dëgg woteel Amadou Ba musiba la ci réew danañ leen wax Macky Sall Beug continuer l'esprit neddu ko kobando. du fi am du kobando bandum ala naforé, ma ne neddu ko amul et aujourd'hui les populations du Fouta ne sont a parce que dañu leen Nakh tey jii ñu ngi ci seeni i jafe-jafe te loolu kenn waru ci seetaan kenn warul jàkkaarloo ak ñoom ñi nga xam ne jàpp nañu ci seenu féete wala ci seenu ànd ak moom ñu leen di nax nan leen nedd ko band sénégalais yi dootuñu ko nangu on est déterminé yéen ñëpp encore une fois docteur

stratégie bi stratégie bu leer la c'est de disperser les forces de l'opposition tas ko ba mu tas tasar pour que mom ñi mu andal bu ñu yeggee ci deuxième tour ñu mën ko natal ay nak ah sénégalais yi teg nañ leen bët yeen ñi jall il faut pas décevoir les sénégalais Sénégal mérito na lu ëpp lii ñu bëgg

maa ngi di sant bu baax ci ñëw donc on reste à la disposition de la presse s'il vous plaît s'il vous plaît on reste à la disposition de la presse si vous avez deux ou trois questions rapidement nous nous ci